dama bëggoon fàttali solo bu yarum jën am bu nga xam ne moom la gouvernement président Macky Sall placé ci yarum jën parce que dañu dem ba xam ne que léegi géej bi lu muy joxe ci jën dootul doy ndaxte population bi day yokku léegi ñu ne il faut ñu am benn solution pour que nit yi di continuer di am jën bu doy parce que xam nañ ne sénégalais yi boo boo xoolee yàpp ak ginaar lépp fépp protéine bi nga xam ne moom la jëlee ci mala jën euh, mu ngi ci nekk toolu ci 70 pour cent maanaam boo xaymee téeméer juróom-ñaari fukk yi mu ngi jóge ci jën kon nag jën bu manqué nit yi dañuy daal di am problème pour si en en matière de euh, si si ñent bi nga xam ne mooy jóge ci euh, ci ci mala yi moo tax ñu ne ah il faut ñu ut solution parce que comme géej bi dafa wàññeeku il faut ñu ut solution pour nit yi di am jën moo tax président Macky Sall ne il faut ñu développer yarum jën benen solo bu mu am day tax ñi nga xam ne dañuy sori géej tamit mën di am jën comme fii nii géej amu fi waaye dex baa ngi nii mën nañ fi yar jëm boo demee ci dans le Bawol dans le si dans le en plein Sine dans le Njàmbur foofu yëpp mën nañ fa am jën gi ndax yarum jën donc dama bëggoon laaj euh, fàttali aussi solo boobu nga xam ne moom la euh, président ak gouvernement am jox aquaculture ba tax ñu dugal ko ci plan Sénégal émergent donc bu ñu paree loolu ñu ne tey dañu ñëwoon fii pour euh, jiw jën yi Euh, si bassin bi nga xam ne mooy sébi ponti ak belvédère bu ñu dem moroland euh, loolu nag dafa am solo parce que plan gis ngeen ko ndox bu rafet la jën mën na fi dund judd màgg ba pare juraat su ko defee ñu fi dëkk dañ koy xel di napp di di, di ko jaay di ci lekk di ci am beneen koom-koom donc tey loolu mooy solo si di gërëm madame la directrice ci yéene bi ñu indil en travers l'état di gërëm en passant président de la république Macky Sall di ko wax ne am nañu mbégte di gërëm ministre de la pêche parce que lii koom-koom la ci Morolan bassin bi yàgg nañ ko di joytu pour ñu indiwaat jën pour Morolan jëm kanam parce que ni mu ko waxee Morolan amul géej waaye am nañu it suuf am nañu it euh, bayaal boo leen gisee suba ba gis ngeen naq yi ñu ngi naan di dem gis ngeen maraîchage autour ñëpp ngi fii sànq lañu leen wax ne ñëw leen parce que bassin bi day am gan pour dalal seen xel ne rek jën ngeen fi indi nekk na junne ak juróomi ak juróomi téeméeri jën ñu fas yéene mu doon juróomi téeméeri juróomi junniy jën incha allah madame la directrice dañ naan boo tëddee nelawal ni nga ko waxee am nañ comité de gestion boo xamante ne Zal Mbengue mu ngi nii taxaw suñu ginnaaw mooy président peut-être xëy na boo ba léegi ñu ngi koy joytu bind nañ pour ñu empoisonné waat kii jaay bi parce que ñun waa Morolan jën mooy suñu dundin géej jege wuñu yàpp cher na te vraiment jën bi nekk na jën de qualité boo xam ne surtout waas bi boo seetee au début bi mu daan fi am xale yu ndaw yi sax dañu daan gërëm une de temps wala trente nga gis xale ñëw fi napp bi dem indil yaayam te loolu am fi woon comité de gestion aussi da ko daan gérer ak pirogue bi fi nekkoon ba ñuy napp ba comité bi ñëw 9 heures 10 heures marché Morolan yëpp fees jën kon loolu bu demee tey ba ñëwaat ñun waa Morolan au nom du maire dañuy gërëm waa ANA di leen wax ne it liggéey bi yàlla na jëm kanam. mébét bi déjà euh, Tenek Sène yàgg nañu liggéey ak moom du tey du tey rek lañu commencé di fa di fa yar jën xam nañu njëriñ bi nga xam ne moom la moom la ana di def ci bassin yi ndax kenn ku ne xam na ne tey boo soxloon jën di nga dem Bargny wala nga dem Tëngéej kon nag bu yàlla defee moom yàlla def ko ci bopp euh, ana mu jiite ko te ñu xam liggéeyam xarañam buñ ci defee jën dafa mel ne ne tey dimbali nañu population yi ñi nga xam ne dëkk nañ fi ndax jaratul ngay dem feneen ci xam na koy nappee jël ko population bi jëriñoo ñun na xam nañu liggéeyu ana parce que yóbbu nañu ñu formé ñu xam jën yi nu leen di sàmmee nu ñu leen di yare kon ñu ngi sante yalla di leen sante, di sante délégation yi nga xam ne ñëw nañ fi tey fekkee lii

vision pour am parce que plan Sénégal émergent euh, aquaculture bi amna place bu am solo bu puisque gis na ni bi am tay ak te sax na ni dem ba napum aquaculture yi moo koy ëpp solo te commencé na ba pare donc je crois que dañ leen di dañ lay euh, encourager di la euh, ñaanal yàlla li nga taxawee pour loolu jëm ci kanam yàlla defal defal la ko puisque njëriñu Sénégal kese la donc damay wax ne bassin bi amal na njariñ commune jamñaaju bu baax a baax parce que euh, activité yi nga xamante ni moom lañ fi def euh, bëri na dañ fi bay tey boo demee autour du bassin am na fi ay projet yu am solo muy ay abri fruitier ak lu ñuy wax maraissage aussi euh, li ñuy wax càmm gi maanaam tripot yi dañu fi ñëw di fi nandal donc yooyu ay activité la dolli si li nga xamante bi mooy pisciculture bi pisciculture bi nag nekk na activité bu nga xamante bi moo fi mujj ñëw mais nag am na parce qu'actuellement, actuellement non plus que nous nañu ensemencer mais aussi bassin bi dafay ensemencer boppam naturellement Bon, demee ci biir euh, jën yi na fi donc loolu yàgg naa ko wax euh, waa donc mais nag activité boo xamante ne bii la am solo mën na rentable maa koy wax sànq la directrice que euh, jën bi moi mooy dundal bopam naturellement ci ñax yi nekk et je pense que comme techniquement jën bi bu amee six mois dañ ko war récolter alors euh, suñ ko accompagner ak aliment je pense dina gën efficace dina gën a rentable en tout cas ñun avons un ci ay objectifs que su loolu amee war nañu mën a dem ba ay cinquantaine de tonnes et je pense que bu boobaa dina gën a am njëriñ sànq aussi maa ngi doon euh, waxtaan ak directeur bi di ko wax ne si passé euh, war nañu am ay équipement parce que moi nous na fi ay yoonu yoon ñu def ay récolte mais récolte yi suñ koy def dañuy dem di louer pirogue dañuy louer filet etc et je pense que bi ma ko ak euh, budget bu ndaw bi mu yoré je pense que war nañ ci mëna am ay euh, ay équipement pour que affaire bi gëna taxaw